waaleykum salaam wa rahmatullah wa barakaatu sëñ Mor ñu ngi lay delloo nuyoo di wax asalaamaaleykum wa wa barakaatuhu di nuyu kasu subahaat ci diini ak jamono ala kulli xaal euh, sëñ ñu bàyyi loola xel ne la gis nga yoonu biddaa yi boo ci nekkee nii rek lay demee chaque instant sa xol day mer xam nga nga ñëw di fay fay te doo wax lenn loo xam ne lu concret ci diine comprendre nga li ngay def daal mooy bu nit waxee nga ñëw tontu di xalaf xalafi li am solo sëñ Mor mooy nga jéem a bàyyi yoonu biddaa bi nga nekk te toppi alxuraan ak sunna parce que yoon wi nga ne di góorgóorlu naan waaw ñun ay nangam lañ ci lañ fas yéenee dee loolu mooy loolu loolu mooy seeni wax ñun gis nañ fii ko taxaw ni ñoom yéen du ngeen ay julit yéen du ngeen ay julit ay nangam ngeen moom nga confirmé waat tey gis nga ko bi ngay ñëw bi ngay wax da nga ne ñun ay nangam lañ ci lañ fas yéenee dee nangam jooju ngay woote woo di ko woote woo sa bopp yàlla woowu la ci loolu yàlla waxu la ni la Mor Sylla boo demee àdduna na nga doon nangam lim la wax mooy doonal julit ah. alaa tamuutunna illaa la antum muslimun bu leen faatu mukk te nekku ay julit xalaas xalaas bu fi nekk naan man lii laa man leelaa nekkal ak julit bu tënku ci sunna lii la yàlla santaane leen ay julit tënku ci sunna bu fekkente ne da ngaa ñëw naan man lii laa yoonu bàyyi diw bi ci laa fas yéenee dee waaw ci nga fas yéenee dee mais yàlla santu la ko yàlla moom waxul toppal bàyyi diw ndax garanti wul bàyyi diw garanti wu ko te yàlla wooteelu wu ko fi aw yoon moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba muy santaane dani alaykum bi sunnati allahu akbar alaykum bi sunnati la wax mooy leen ci sunna si yéen ñëpp àndandoo leen téey ci sunna si alaykum bi sunnati yonent bi waxul partagé wu leen di fi woote ay yoon kon nag ma jëm ca yàlla kon nag ma jëm ca yàlla yonent bi leeral na fi ngay jaar leeral na ko moom mu leer naññi kon moom kenn wootelowu ko aw yoon woo xam ne day ñëw naan ku bëgg a jëm ci yàlla kaay jaar nii sama gise ngi nii sama yoon a ngi nii déedéet loolu dafa xaram ci diine ji sëñ Mor maanaam mbir mi du caageenu da am benn paabooy bëgg ne rek naan waaw diw nangam moom dafa woote aw yoon ñun ay lii lañ ci lañ fas yéenee dee ci yoon wii lañ ne manam lol du lol du dara seigne Mor parce que ken santu la ko sa xalaati bop na da ngay wax sa xalaat waaw bu la nexé wax sa xalaat <clears throat> mais diina ji mom ay aya la ak hadith kon li am solo moy bu fekkee da nga ñew bëgg a ben way ci diine dang koy layale ay aya ak hadith su fekkee yalla da ko yoni nga xamal ñu ni yalla da ko yoni su fekkee yàllaa ko jox ndigal mu woote aw yoon nga wax ñu ni yàllaa ko jox ndigal mu woote aw yoon su fekkente ni maasum la nga wax ñu ni maasum la te layal ko ci diine ci waaye ñëw rek di jéem dëggal sa bopp naan wala ñun ay nangam lañ ci lañ fas yéenee dee yooyu day dara yooyu day dara yéefari màkkee ci ci kéefar lañ newoon ba xëy faatu dem sawara te bi leen yonente bi alayhi salaatu wasalaam woowee ci diine ji dañoo lank waaw di taxaw di dëggal seen bopp di génne jaasi di xeex ba faatu dem sawara bu leen wóoroon ni buñ faatoo dem sawara duñ fa dem kon delloosil sa xel delloosil sa xel wii ngay wax waxinu ko seytaane nax képp la mooy ñëw di jéem a dëggal sa bopp naan wala ñun ay nangam lañ waaw ci lañ fas yéenee dee yooyu di waxit dara sëñ Mor seen yoonu biddaa bii nga nekk ay junniy nit a ngi ci woon gën laa jàng fopp dañ demee ba gindiku dañ ko fa ni ñukk dem toppi alxuraan ak sunna maanaam il faut nga bàyyi xel ci ni kii ngay défendre yàlla da koo woote loowul aw yoon loolu dafa war a leer ci sa bopp yàlla da koo woote aw yoon muy ñëw di ber yoonu boppam naan kaay leen ñu dem ca yàlla yoon wi nii la mel naa la mel bal lii ngay wax ak li am daa bokkut maanaam yéen seen yoon wi dafa tegiwul ci sunna lu tax mooy benn dafa sosu wa kulla muhdathatin bidaa lu ñu sos lu ne bidaa la ci diine ci ñaareel ba mooy principe yi ci boppam darul principe yi l'islam ndax yéen ci seen wàllu bopp bala ngaa mën a bokk ci bagaas yi dëgg dëgg dëgg dangay mën a bokkaale bala nga cee mën a bokk dëgg laa wax da ngay mën a bokkaale bal fan yii yéen a ngi ci classe waajoo xam ne seen waajooju rafan yi la xaw ma kooku nga xam ne moom maanaam ñëpp ànd nañ maase wax ni mo mooy ki tane waaw mooy ki tane wala bokk ci ñi la bokk fan yi yéen a dal ci kawam fan yi ñu bare bare bare bare yu bari ci ñu ngi koy kalaas di ko sànni baat da ngeen amul fitu duwa ko rek waaye ñu baree bari ci yéen ñu ngi koy sànni baat lu tax mooy di jéem góor góorgóor ni rey leeral waaw gannaaw mënu leen koo génne ci bagage yi ndax ci la bokk léegi nañ leen koy sànni baat fan yii rek gannaaw seen luuma bi jàll rek coow laa ngi ni kur ci moom kenn ku ne yaa ngi jéem a jël ay waxam di ko sànni baat ak jàpp ni moom moom ci liy daaneel bagage yi la bokk kon delloo si leen seen xel. Euh, bi ci des sëñ Mor la nga ni yàlla mën naa bañ a topp kenn dara wax jooju wérut. wax jooju wérul wax jooju xeeti wax la yoo xam ne ka koy wax dafa gëlëm ak ngëlëm te daa ne ci moom soo taxawee fii naan yàlla mën naa bañ a topp kenn dara te yàlla tabaraka wa taala ni nabbi ibadi anni ana alghafuru rahim wa anna azabi huwa alazabu alalim loolu di xibaar bu leer naññi mu jox ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam ni ko wax ko jaam ñi ni leen ku bari yërmande laa kuy jéggale laa waaye nag ku tar am mbugal laa ah xaafiri dambi wa qaabili taw bi shadidul aqaabi li tawul loolu di alxuraan di di lu leer naññi suñ borom tabaraka wa taala wax ko mu leer naññi ah daal ni wattaqu naara allati uiddat lil kaafiriin nga ñëw naan yàlla mën naa bañ a topp kenn dara te borom bi wax ñu ragal leen sawara si nga xam ni maa ngi ko waajale kéefar yi mooy kati yàlla yi ñaata nit la yàlla tudd seen tur ci alxuraan ni ñaga nga sawara ak ñaata giir aw nit woo xam ne waa aat waa samuut ah firawna ak nitam wa eh, ñoom namruut eh, yéefari màkka ya nga xam ne seen borom tabaaraka wa taala wàcce woon na ci yonent bi alayhi salaatu salaam alquran mu woo ñu bañ ba faatu ci loolu eh, nga ñëw naan yàlla mën naa bañ a topp kenn dara loolu sa waxi bopp la ngir ñàkk aw lay ci seen gaa yii te mu wóor la ni ci ay njaaxum lan ne léegi nag li ngay def mooy naan dangay ngay leen di jéem a défendre naan yàlla mën naa bañ a topp kenn dara loolu du waxi dara mor loolu waxi ku ku pareegul la sa wax jii ngay wax nii waxi ku pareegul la seen ñàll wii ngeen ne di ko kapp kappala ka ter darul dara parce que biddaa la yoonu biddaa képp la la preuve mooy ay biddaa donc résultat biddaa rek day génne bu dee mokkalum alxuraan ndaka jekk nit ñaa ngi mokkal alxuraan ci kaw suuf. waaw bu dee mokkal alxuraan ndaka jekk laata seen waajee ñëw nit ñaa ngi mokkal alxuraan kon mokkal alxuraan moom sunna la waaw fi la ko yonent nit ñaa ngi koy def ba ilaa yawmi diin parce que alxuraan ji koy wat amul mel ni mbindeef mu ko mën a wat ñun ñii ci ne ñu ci teg di di ko wattuloo ko wattoo ci ñun kon képp koo xam ne da ngaa mokkal alxuraan te bokk ci seen gaa yi loolu moom sunna la loolu du jëfi seen waaj loolu da ko war a bàyyi xel baax du ay jëfam bu dee tudd yàlla du ay jëfam laata moo ñëw jamono nit ñaa ngi tudd yàlla ba mu fi jógee ba léegi nit ñaa ngi tudd yàlla bu dee jaar ci sunna loolu du ay jëfam jëfi yonente bi la alayhi salaatu wasalaam moo jàngale sunna jaar ca wan ko nit ñi yàlla tabaaraka wa taala di ci dott doomu aadama yi di leen ci sàmm kon jàngale sunna ba mu leer loolu du ay jëfam bu ko defee da ko war a def loolu jeerul ñu ci top kenn jeere jeefe diiw ak jeefe nangam ak amul moroom ak bu won ak mom kenn du nangam ak jeere jeefe diiw ci lan lu mu fi def lan lan la fi def bu re def lu bax fi la ko fek ta tay la nit ñi dàq def lu bax ñuko gëna ragal yalla fop ñoo ne ci kaw suuf dàq ko def lu bax gën ko jégué yalla gën ko ko xam boole ci kon waxal leneen amul lenn lu mu jago ci ak mbax lu doomu adamay mënut amut du lenn amul lenn nag loo xalaat ak loo xalaatul loo xam ak loo xamut amul lenn loo xam ne moom jagoo na ko ci ak mbaax lu doomu aadama yi mënut bu dee tabaxi jàkk nit ñee leen gën a dàq tabaxi jàkk téeméeri junni yoon Sénégal jàkk ji fi njëkk a taxaw du seen jàkk jooju jàkk taxaw na fi lu yàgg te seen jàkk jooju taxawut bu dee jàkk ju rafet Afrique fii li fi ne ci ay jàkk yu rafet du jeex yoo xam ne mën naa juróomante seen jàkk yooyu ba pare gën leen a tënku ci sunna jàkk yoo xam ne dañ ciy suul ay ay nit jàkk ju ñuy suul ay nit xotti nañ war may jàkk ja loolu na ko bàyyi xel bu baax bépp jàkk boo xam ne suul nañ fa doomu aadama ca biir jàkk ja xotti nañ xormay jàkk ja dafa bokk ci liy xotti xormay jàkk mooy nga dem ca biir jàkk ja suul fa nit te yéen loolu ngeen di def seen dëkk boobu jàkk yu ci baree baree bari dafa am ay bàmmeel ci biir jàkk yu ci bari bàmmeel yaa ngi ca biir mënu leen koo weddi kon loolu xotti xormay jàkkale te loolu dangeen koy def te loolu du sunna loolu du na bal dafa xaraam ci diini ji bal yonente bi alayhi salaatu wasalaam da koo tere kon yéen ana seenu topp sunna ana seenu topp sunna ah alquran jii lànk ngeen ñu bari duñ ko firi ci seen dëkk boobu ñemewuñ ko wala am na ci ñoo xam ne buñ koy firi dañuy làqatu buñ koy firi saraaxatan mu leer nañ ñu génn leen dëkk bi waaw ña ko fay firi te dëppoole kook sunna yépp ñi ci bari dañ leen a génn dëkk ba xanaa ñiñ leen ñiñ mënalul dara waaw ñi nga xam ni mënaluñ leen dara te ñooñu dañ leen dañ leen dañuy wax gars yi ni leen dee leen moytu diw dee leen moytu diw ndax diw moom léegi daa daa daa mel ni daa lënkaloog naar yeeg daa nàngam kon yéen lan mooy seen problème lu ngeen fii def ci lu baax doomu aadama yee leen ko dàq ba pare nag gën leen a sunna yéen ñaata junniy nit ci yéen sëñ Mor Sylla ñoo dul julli duñu wa ñaata junniy nit ci yéen ñooy ràngoo ay ndënd ki tamaaki lu ne ñaata jigéen ngeen yàq tey ci kaw suuf yoo xam ne tey muuru ga leen yàlla santoon lànk nañ ko waxuma la lànk muuru ga yam ca waaye yor comportement yoo xam ne dañuy dem ba dootuñ yor comportement yi nit ñaata junniy jigéen ngeen sànq tey ci kaw suuf ñaata nit tey ñooy bokkaale yàlla subhanahu wa taala te bokku ci yéen ñaata nit kenn mënu ko wàññi man nañ laa wàcceel fii lu ma téeméeri vidéo yoo xam ne benn bokku ceeg sa moroom te ña cay wax ñëpp dañuy bokkaale kon delloosil sa xel te bàyyi sa caaxaan yii ñaata nit ci yéen morsule ñaata nit ci yéen ñooy taxaw tey ci Sénégal di jël momelu yalla gi di ko askanele sa waji ji te loolu amoo fitu wax ci fitu wax ci seen bisub bidda bu bon bu passé bi ni rek ñaata jundi nit tay ñoo ci def ay scandale yo xane tay mi ngi ci media yi mu leer nañ puuka réwu yàq wax ju bon ay raj-raj lo ki jigen kon yaakaar bu fekkonte ni da ngay ni top sunna te muy deug ci yeen kon lii ñu gis ci société Sénégal bi du am situation bi nii mu mel du ko mel déedéet du ko mel seen bisub biddaa boobu noonu rek keroog samedi gi samedi gi samedi gi rek sandarma yi jàpp nañ lu mat presque cinq cent personnes xawma quatre cent et quelque ci nga xam ni ba nee suba la biddaa bi bu ngeen doon topp sunna loolu dana bu fekkonte ni ci sunna ngeen nekk laa yar ndaw ñi ci sunna yar leen ci alquran ak sunna ñu yor comportement sunna yor jikko yonante ba sallallahu alayhi wa sallam loolu du am cinq cent personnes ci lu matul benn fan ñu teg leen loxo ci ay ñoo xam ay xale yu góor lañ diggante vingt ans ba trente ans ba trente cinq ans quarante ans ci ay njaaxum yoo xam ne def nañ ko ak yor lu bon ak jël alali jàmbu rek loolu da ngaa mas a gis ay sunnit yuy daje nga gis ko da nga koo mas a gis parce ngaa gis ndaje moo xam ne waa sunna waa sunna ñoo fay daje nga gis ñu ni jàpp nañ ca ñoom ñett rek wala ñeent parce nga koo gis kon delloo sa xel mii te jéem a buddeeku ci seen yoonu biddaa wii moo gën ci yow de yoon wii munu leen koo layal munu leen koo layal munu leen a waane ba layal ko boo bëggee ay lay da ngay jàng aaya wala nga jàngub xadis waaye wax ba yeggal di jàngi bayit ay bayit du aw lay ci diine ji yàlla garantewul ay bayit loolu nag bàyyi bàyyi leen ko xel yàlla garantewul ay bayit yàlla lim garanté mooy aaya yeeg xadis yi diine ji ay aaya laa ki xadis qaala allahu taala wala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wala loo xam ne ulama yi borom xam yi ñoo ci ijma teg ko ci lu wér ijma ci ta borom xam-xam yi duñ ijma ci ay caaxaan seen yoon wi kenn dëppoowu ci du ijma ci diine ci du ijma kat nañ xanté deug kon delloo si sa xel bu fekkante ni nak jek jek rafet lu ben way rek dandi waw waaw wote neena nañ dem ci yalla loolu ñepp ko man loolu ñepp ko man même shaytan bi bu lay nax sax da lay ni mom da ragal yalla shaytan <coughs> iblis bu lay nax da lay lo ni mom ku ragal yalla la ci loolu la lay naxé ba door la yobul sawara yàlla ci yalla musse kon nañ delloo si xel yi nañ delloo si xel yi te bàyyi caaxaan yi xam nga ni sa bagage yi nga ne mënoo koo layal ci diine ci xam nga ko bu baax a baax a baax Sénégal fii yéen dong lañ fi gis ay paa yu toog di def yàlla di wax yàlla lu ñaaw fii Sénégal fii yéen dong lañ ko fi gis taxaw di wax yonent bi alayhi salaatu wasalaam lu ñaaw ak taxaw di gis di gis ay kuréel ay góor jigéen ñuy weddi yàlla saraxatan weddi gu leer nañ ñi ci réew mi di jël di jël li yàlla moom di ko moomale nit réew mi diwa ko moom danga koy dégg ba tàyyi weddi yàlla la man diwa ma moom su may dund ak su may dee yëpp diwa ma moom weddi yàlla la gu leer naññ nga xam ne yéen li ngeen di puukare woo di ko tiitare woo mu nekk ay sologa loolu ay kalimatu kufru la waaw ay kalimat ay kufriyaat yu baree bari ngeen di puukare woo diwa ñu moom yàlla mi la moom léegi puukare woo toot yàlla léegi diwa ngay puukare diwa ñu moom diwa ñu moom réew mi diwa ko mom lolou wedd yalla gu leer nañ la sumay dund ak sumay de yep diwa ma mom lolou wedd yalla la te lolou ngeen di poukere wo mom ngeen di jaare ci mbeddi hein da ngay gis ay jundit nit ñu dajalo amuñu lenn lu ñuy wax naan lu dul jefe diw jefe diw diw ma nga jefe diw lu mu la defal ko xane yow ngelaw dong wu ko ci sa dund ak noy aw noy kep la wax fépp karaw muy karawu kaw wala karawu suuf nak participer wu ko ci sa dund amul lenn lu mu participer moo la fi indi déedéet moo lay dundal déedéet moo la bind déedéet moo la moom déedéet moo lay wërsëgal déedéet moo mooy teg feebar déedéet moo koy tegg déedéet moo la jox am xel mi ngay xalaate déedéet làmmiñ wi ngay waxee moo la ko jox déedéet boo lekkee moo koy reesal déedéet sa biir bi moo la ko jox déedéet sa tànk yi noonu la yëg ci yow jigéen ba nga jóg taxawal ànd ak jigéen sëy yàlla may la doom moo la ko jox déedéet kon ragal leen yàlla te jox yàlla xàqam nañu ragal yàlla te jox yàlla xàqam jox yàlla lim moom kii ngeen di kapp kapp la ko réyal du dara ab jaamu yàlla képp la munu koo weesu munu koo weesu li ko war mooy tënku ci alxuraan ak sunna bu ca nekkee ba muy dund alhamdulilah bu fekkee nekku ci woon yàlla na ko yàlla yërëm xalaas diine ji yàlla yonent bi la ci garanti sallallahu alayhi wa sallam mennum moom la ci yonent la ci yàlla garanti wa in tuti yow waxu tëtëdu koku yàlla yorante bi rek lako wax su ngeen ko topé djub menn mom mo am maqama jooju wa qul atiyu llaha war rasul top len yàlla akub yonentam lol lako wax niko wax ko nit ñi wa man yuti rasul faqat ata allah ku top yonent bi alayhi salatu wasalaam top nga yàlla lol yonent bi alayhi salatu wasalaam rek moko garant mom mom la yàlla garantel lolou qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabiuni yuhibbukum allah su ngeen bëggee yàlla bëgg leen topp leen yonente bi alayhi salaatu wasalaam bu ngeen ko toppee yàlla dana leen bëgg ba noppi jéggal leen seeni bàkkaar ah te ku ko may dem sawara kon ñun li ñu war mooy la yonente bi waxoon balligu waan nii wala aaya jot li leen ma li ngeen xam doonte ab aaya la kon ñun jot lee ñu war waaye jaaduwul nag ñuy woo nit ñi ci suñ bopp nag di fent ay yoon di ko tudde ay tur ba tey ñu baree bari sànku ci yoon yooyu nga naan yoonu sunna yoonu sunna da nga ca gis ñàkk a julleeg ñàkk a war yoonu sunna da nga ca gis fukki jabar yoonu sunna da nga ca gis nante doo mandi yoonu sunna danga nga ci gis ay kuréel yi taxaw di bokkaale naan yàlla naan naan diw yàlla la di ko wax publiquement ñëpp yi dégg da dégg yoonu sunna dana am loolu yoonu sunna dana am yori ndënd di tëgg ka waye ka fecc takkarti tëñëxu guru jeex mbëkki baas ak lu ne ñu dugg ci loolu mooy yoonu sunna kon delo sil sa xel mi xam nga ni wuta ngeen ak sunna ta sore ngeen ak sunna jagewu leen sax sunna maanaam yoonu sunna yoonu sunna moy li fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sunna sëñ bi dëkkul keur bàyyi kenn ci ñun sunna moy alquran ak sunna waxi yalla ko yonentam lolu moy yoonu sunna siratal mustaqim bo ci jaaree rek ñu xam ko melokaanu sunna ku ko yor buñ la né jàkk xam ni ki ci sunna la ne sunna du luñuy lam lamé du luñuy xalaat du luñuy ñuy fent lu fi yàlla tegg la ba pare garante ko ni jaar leen ci loolu mooy sunna waaw yonente bi alayhi salaatu wasalaam li mu waroon a jottali yëpp jottali na ko bàyyiwul dara lii xaraam leer na lii dagan leer na li lënt di ci diggante bi nee na boole leen ko ci lu xaraam ku bëgg a ñoŋal sa diine ay ñëw topp ay bagage yoo xam ne yow buñ la ka ngay topp di ko défendre même bu fekkente ni wuute na ak sunna sax nga ñab ñabal xaw kii naan waaw moom baatin la moom amul moroom ak yàlla da ko jagleel lii ak nga xam ne amoo fitu weddi ko yow même bu wuuteeg sunna amoo fitu weddi ko yow weddi sunna moom nga gën a ñeme ka weddi waa joo xam ne yàlla yónniwu ko te loolu da nga koy def morsi la xamante nañ ahlu sunna wal jamaa dañ la fay indil ay mbir yoo xam ne da ngay ñëw diit diital naan ay baatin Eh, naan diw amul moroom ak bu ko waxee rek dëgg la bu dee moo ko wax dëgg la te fekk yàlla garanti wu ko koo xam ne daa wax ba wax lu weddi alxuraan weddi sunna ñu teg ko ci sa kanam nga am fitu weddi alxuraan ak sunna ngir défendre kooku xam nga ni loolu musiba la musiba gën te rëy loolu. yow koo xam ne yàlla du la laaj ay mbiram ci bàmmeel bu ngeen dekkee yaa moom ay taxaw ci sàppe si doo sol tubéy du sol tubéy du la tal doo ko tal dañ lay jox sa téere nga téye ñu jox ko téere mu téye boo ko day daw wëqët parce que ay doomi boppam da daw te moom juru la xamula sax avant yàlla avant ngay judd moom faatu na xamul ni yàlla bind na ku mel ni yow yow mal xiyaam bu ngeen fa dajee nii la lay rombe du la tal parce que xamula yow yaa fi nekk naan diw diw mais moom xamula xamul ni yàlla bind na ko mel ni yow sa dund gi participer wu ci lu tal ni aw baqata participer ku participer wu ko ci ay doomi boppam yëm jural boppam bu ngeen dekkee ñoom da di daw ñoom it ñu koy daw kii daw doomi boppam day day talub taalibi nañ waxante dëgg يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والاب يومئذ لله لول لا يالا وخ يالا نينا بن بكان دو منال بن بكان دارا يوم القيامه ندخ مبير ما يالا لا نيل يالا كوي ريغليل بوبام يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان يغني لول لا يالا وخ واخ يالا دو وخي نيت كي بيند اسمان سو مو وخ لول نينا بيسا ني نيو بو خاني اند دويه دانيي داونتي ني ران انت nee na bis a ngi ñëw boo xam ne papa day daw doom yaay di daw papa yaay di daw doom doom di daw papa soxna day daw borom këram borom kër di daw soxnaam ñaari xarit dañuy dawante loolu kay waxi yàlla la du waxi nit bis la boo xam ne nit ñëpp danañ ànd dem ci yonent yi ñu gàntal leen maam bu ñu demee dana gàntu yonent yàlla Nuux ñu demee dana gàntu yonent yàlla Ibrahim dana gànt yonent yàlla Muusa dana gànt mennum yonente bi alayhi salaatu wasalaam moo fay taxaw keroog ñaan yàlla yàlla atte jaam ñi kenn ku ci ne dem fa nga war a dem kon nañ delloo si suñ xel nañ delloo si suñ xel waaw kii ngay wax di kapp kappala koy yomal xiyaam ci biir sàppe si lay taxaw du la tal doo ko tal lam liggéeyoon ci loxoom lañ koy jox jox mu téye ko yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min xayrin muhdara wa ma amilat min suuin tawaddu law anna baynaha wa baynahu amadan baidan wa yuhadirukum allahu nafsa loolu wax yàlla la du waxi nit ki bind asamaan ak suuf ko wax benn bakkan bu ci nekk bu yowmal qiyaamee la nga doon jëf dañ la koy jox mu nga téye ko su baaxee alhamdulilah su baaxul nag nga bëgg mu sore la ni penkook soowu sore te doo ci man dara kon delloo sul sa xel kii ngay kapp-kappal kenn toppaloowu ko duñ la laaj ay mbiram ci bàmmeel boo dekkee doo ko tal yowmal qiyaam du ngeen bokk fu ngeen di taxaw bu leen yàlla laajee kenn ku ci nekk bu la yàlla laaj sa morom du ko fekk bu la yàlla woowee moom du ñëw bu ko yàlla woowee doo ñëw yàlla ci lim wàcce woon ci yonant bi ci la lay atte du la atte ci li ci li ngay ci ngay toppe keneen yàlla lim lay attee mooy noo defe woon ak sama diine ci ci la lay attee waaye ay kii diwa nga toppoon ak yaa ngi woon ci yoonu diwa ak yooyu déedéet yooyu amul yowmal qiyaam de waaw ñun nag ñoo fi nekk di wax suñu waxi bopp mais yàlla moom li wax du daj wallahi alazim yàlla li wax du daj dañ ko bàyyi xel bu baax a baax a baax delloo dellul ginnaaw Mor Sylla dellul ginnaaw te toppee alxuraan ak sunna moo gën.